C'est bon pour tout le monde. après nag yan may sama gan bi yaa ngi taxaw ci kanam ah non non après fi ngay daw tu as tu as lu les sols. c'est bon pour tout le monde. c'est bon. Si c'est ok, on démarre. C'est bon D'accord. Assalamu alaikum, euh, messieurs les journalistes. Je voulais vous remercier de cette ginnaaw bi ma leen euh, ndokkalee ci tamxarit gi di ñaan ñu fekkee ko déwén yu bare bare bare di ko ñaanal aussi suñu njiit yi muy président Bassirou Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko l'ensemble des du gouvernement les responsables ak sénégalais yëpp yàlla defal ñu atum jàmm ak salaam di ziare aussi suñu kilifa diine yi ah di sàkku ci ñoom bi ñu doon année naataange ni ngeen ko xamee sunu mouvement muy le mouvement pour le mérite l'intégrité et l'indépendance, membre fondateur wu coalition Diomaye président la ñu kon tey en tant que allié engagé ñu ngi rafetlu les premiers pas bu suñu régime bu bees bi mi nga xam ne mu ngi soog a matal téeméeri fan yi en tant que régime ma bëgg nag aussi saisir l'opportunité pour vraiment tontu ñi nga xam ne vraiment war nañ leen a tontu nag ndax li fi jot a jaar yàggut te sénégalais yi fàttewuñu ko ndax la ñu war a njëkk a fàttali mooy guléet ci bu yàgg a yàgg depuis defe naa ne 2000 2000 ak léegi defe naa ne xale yi ci juddu woon ñee ñu ngay sëy ñee ñu ngay yuttu soxna kon loolu yàgg na booba ba tey élection présidentielle ci ñaari tour lay sotte waaye électeurs yi bii yoon benn voyage ci benn voyage la ñu décidé dégager régime APR Benno Bokk Yaakaar Benno Yaakaar la benn dal di fal président Bassirou Diomaye premier loolu yàgg naa gën naa am ci Sénégal la mu wane mooy sénégalais yi dañu àndoon ak détermination pour que li jot a xew ak na mu mujjee muy régime président Macky ñu tourner la page waaye nag li may tàmbalee mooy. féliciter le président Bassirou Diomaye Faye premier ministre Ousmane Sonko l'ensemble des membres du gouvernement ñu féliciter leen féliciter aussi les membres de la coalition Diomaye président am nañu fi teew maa ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu aussi seen contribution ci victoire bi di féliciter aussi sénégalais yëpp ak fu ñu mënta wote nag tous les sénégalais yi nga xam ne danoo gëm ne démocratie sénégalaise fondement yi dëgër nañu moo tax ñu xëy jour 24 mars boolewuñ ci coow dem wote ci anam ba mu gën a leere boolewuñ ko wax ju bëri ni histoire ba déjjëtti fi régime bi nga xam ne mooy bu président Macky Sall ak bu APR ak bu bennoo sénégale yi démocratie la xam wane nañu ko aussi très clairement waaye dañuy aussi luñ dul faral di def delloo njukkal sunu armée quartier dañ leen di delloo njukkal ndax c'est une armée boo xam ne bii elle est restée républicaine jusqu'au bout ci jamono yu lëndëm ci politique bu Sénégal ñoom boolewuñu ne boolewuñu ci list yi nga xam ne en Afrique coup d'état militaire am na fi kon ñoom it xëy na la grande muette lañ leen di wax ndax bariwuñu coow waaye ñun citoyens yi démocrates yi ah, ñu ngi leen di delloo njukkal waaye nag maa ngi rendre un vibrant hommage aux martyrs de la démocratie ñooñu waruñ leen a fàtte mukk ay martyrs lañ leen war a ji lañ leen a jàppe ñoo xam ne dañoo joxe seen bakkan pour démocratie taxaw waruñu leen fàtte mukk te waruñ nañ fexe ba justice ñu jox ko seeni famille mbokk yi maa ngi aussi rafetlu bu baax a baax l'ouverture d'esprit clairement exprimée par le président Bassirou Diomaye Faye ak gouvernement ci nomination yi nga xam ne jot nañ ko seetlu ñu fal ay personnalité yoo xam ne bokkuñu sax ci champ politique bi naa ci indiqué ministre de la justice politiqueul sa politique ministre de l'intérieur ministre des forces armées ñooñu politiqueuñu waaye gis nañu seen xarañte ak seen bëgg réew mi ñu tabb leen ci gouvernement loolu man dama koy rafetlu donte politicien la di rafetlu aussi yeneen ministre ministre yi nga xam ne dañu leen a topp te bokkuñu ci parti wu président Diomaye wala ci parti ak ci parti wu premier ministre Ousmane Sonko xam ne bokkuñu Pastef loolu aussi li mu firnde mooy ouverture rafetlu aussi ni mu président Bassirou Diomaye Faye tàbbee le très respecté professeur Abdoulaye li def ko envoyé spécial loolu it dama koy rafetlu li mu firnde acte yooyu mooy képp koo xam ne kii Sénégal moo la soxal képp koo xam ne kii bëgg nga réew mi avancé te kenn musulaa dégg ci luñ lay xeebee kenn musulaa dégg ci lu ñaaw defe naa ne président ak premier ministre ak gouvernement am ubbil nañ la say bunt man noonu laa ko liire di ko rafet